jàppante nuyoonte saafoonte te loolu lu am solo la te lii day bokk ci liy boolee njabootu euh, Pastef gi euh, ñu nekk ci jàmm gën a booloo parce que dafa am benn wax boo xam ne euh, Sadikh Top daf ma ko waxoon jour bi ñuy collecté campagne bi daf na ma sëñ Baara mu ne maa mu ne ma baye nga ñaan ni ñu bëggantee bi ñuy opposé wu bu ñu ko bëggantee yore ko pouvoir bi kenn mënut a tere réew mi day avancé te loolu nag. ci ñuy dox ñun guddeeg bëccëg suba ngoon parce que du jël nañ nguur gi rek kenn ku nekk da ngay dem def affaire personnel tey lañ war gën a soxlawoo booloo tey lañ gën a soxlawoo xaritoo tey lañ gën a soxlawoo euh, mbokkoo kenn ku nekk euh, loolu day gën a may fit suñu leader yi pour que ñu xam ne Sénégal euh, yëpp ñu ngi ci seen ginnaaw voilà ko li may tooñ saa boo gisee ku naan jamaay lii taxuloon ñu fal la rek boo ko laajee wateelul jamaay waaw da ngay gis koo xam ne opposant bu mag la woon def na lu mu xam pour ñii bañ a falu su dafa jomaay beefee benn acte naan waa président jomaay lii euh, Sonko dem ay ay ay grand théâtre di wax taxul woon ñu fal la te moom falu ko de ñun ñi nga xam ne ñun ñoo leen faloon plus que ñi ngi gën a booloo rek ñoom li ñuy def dañ ciy gën a am fit parce que dañoo soxla soutien wu peuple Sénégal te xeex bi li ci des dafa bari lu nekk suñ kanam dafa bari. ban message ngay ngay lancé waale euh, ndaw ñi ñi nga xam ne instant bi ñii ñi ngi fi ñii ñi ngi toog di seetaan. waaw ndaw ñi moom message bu ma leen di lancé rek mooy ñu jël Ousmane Sonko def ko muy suñu idole def ko muy suñu royukaay euh, parce que mate na ko Yoroja euh, gis naa ko barki démb ñu am ko wax ne Ousmane Sonko dafa def li Nelson Mandela def. gis naa ko mu def effort bu mag pour wax ne Ousmane Sonko ak Mandela bokkuñu di wax ne waaw Ousmane Sonko révolte la def ne som révolution la def mais moom xamul ne bépp révolution boo gis maanaam amul révolution bu amul révolte révolution maanaam bu doon jëmm révolte moo koy jëmmal donc ma ne ko yoro jërul ngay sonn parce que la fait rek ñu mën a am benn sénégalais bu ñu tudd di tudd Mandela ba yow ngay def effort pour wane ne yemuñu rek kon kooku bokk wane na nekk du ko ndaw ndax yaakaar naa ne Afrique bii ñu nekk tey Sonko Ousmane Sonko rek nga mën a tudd di jul turu Mandela di leen di leen tëkkale même bu ñu yemul rek le fait que nga leen di tëkkaleeg na ne Sonko nekkul ku ndaw ku mel noonu nag boo ko amee sa réew da nga koy téye da nga fonk da nga koy ndamoo te da ngay feer ci moom te Ousmane Sonko nekk na nit bu nga xam ne. Euh, wax naa ko fan yële ci sama benn interview soo jékki-jékki woon ñu ne la nga ñëw sa kër ne ana sama jabar ñu ne la xar mi moo ko mat ba mi ngi hôpital doo ko gëm te xar ma la la de mais parcours bi nga am ak xar xam nga ne xar du mat kenn Ousmane Sonko parcours bi mu def ak ñun. parce que témoignage boobu nga mën a defal xar parce que danga ko xam témoignage boobu tey peuple Sénégal mën nañ ko defal Ousmane Sonko parce que xam nañ parce que nekk na fi fi la jànge fi la liggéeye fi la defee politique. fi la dugg kaso fi la defee lépp ba tey mu jiite réew mi buñ bëggee xam naka la yore réew mi rek nañ xool parcours bi mu jaar ba xam moom sàcc la wala dafa bëgg daf am du patriote wala intérêt personnel lay demee yooyu yëpp soo ko xoolee rek di nga xam que ne Ousmane Sonko mooy kan tey bu kenn déglu Ousmane Sonko ci kenn yow déglu ko xoolal ci parcours am te Sénégal ñuy dellu ci parcours nit nit ku nekk sa parcours war nañ la see mën a delloo xam yow yaay kan. waaw tey tey yaakaar boo xam ni bu leet ba ñu ko na ñaari weer soogay génn euh, dem ci réew bu ci mel ne France coow nag bari na ba ñu fa demee yow ban jàngat nga def ci sortie bi nga xam ne tey président Diomaye def na ko moom demagul France demagul France demagul France mooy du question ko yaa ngi ci suufu France rek yaa ngi France Afrique ñoo organisé am ndaje moo xam ne dañoo wax ne France lañ koy defee moom mu dem ci ndajam Afrique moo xam ne France la koy def mais France ci boppam maanaam euh, bu fekkonte ne fa la Diomaye dem amul sens Macron naan ko may ma occasion ñu ndékkeendoo cela veut dire que mooy ci liggéeyu Afrique la nekk ak liggéeyu Sénégal Macron soxla ko bëgg a gisante ak moom te loolu euh, ku dugg ci kër tamit war ngaa mën a jaar si buntu bi te nga ko dem na seeti Abdou Diouf dox na foofu seet sénégalais yu bari ay organisation noonu rek la demee seet président France mais li am solo rek mooy foo daan yalwaani soo fa demee ba tey nga fa nuyoo ji rek war na ñoo xam ne ab jéego am na te jomaay bi mu demee ci Macron dafa nuyoo ji rek te kooku nag ku fa mas a toog ak moom da nga koo yalwaan yow nag sawaay boo amoon waajoo xam ne da lay yalwaan di la yalwaan ba tey mu romb la sol lu rafet ne la sawaay maa ngi lay nuyu daal di continuer di ne sama waa ji na kon avancement bu rëy am na ci peuple Sénégal te am na beneen loo xam ne mat naa xool mooy dernière visite Amadou Ba France ngi nekkoon 27 personnes bi gouvernement bi yabaloon bi ñu demee 27 personnes yooyu plus de 300 millions fay nañ ko ci euh, hôtel 300 millions ak lu topp fay nañ ko ci ñoom 27 personnes yooyu hôtel tey Diomaye dem nafa fa ci ambassade Sénégal ba fa nekk fa la tëdd fa lay fanaan moom ak ak ñim àndal donc kon nga xam ne 300 millions yoo xam ne mënoon naa génn yem ci noosukaayu tubaab yi tey génnul mi ngi yem ci suñu poos tey kooku bu la waxee ne la gëm na dama dama gëm sakkanal alalu askan wi di nga ko nangu te parce que ñun li ñuy incarné dëgg-dëgg du yoon ñun France ni mu ñu rawee suñuy autorité bëgg raw France bëgg raw autorité France yi ci vie bu cher loolu ku nekk xam na ne euh, normalul vraiment euh, loolu daal laa ci am lu ma si wax di wax ñun li ñuy def ñun ñeme nañ parce que ñun nit ñiñ fal bu leen xamul ñun xam nañ leen man bi ma xeexee ba ñu ne Bassirou Diomaye Faye moo toog ci bopp nguur gi man gor laa toog naa wal fajiri ma ne dina yor Sénégal ba mu yegg du war Sonko du war peuple bi te li mu ñu li mu ñu dig dina ci nekk ba mu jeex tàkk te loolu dama défier te gor laa te li ma wax bu ma xamoon ne du am du ma ko wax te loolu noonu ma ko waxee ñeme naa ci xàqan parce que xam naa ne ay gor lañ ay nit ñu am fulla lañ te ay patriote pire lañ c'est la première fois Sénégal am président boo xam ne même ki ko bañ xam na ne kii amul beneen intérêt après mu doog am intérêt Sénégal président boo fi ma si teg day am intérêt boppam wala ma am intérêt beneen réew wala ma am intérêt beneen organisation bu nekk ci ginnaawam muy doog a jéem a defal peuple bi tey nag suñ premier ministre suñ président de la république ki leen gën a bañ ñemewul wax ne ñii ay intérêt France la ñuy défendre wala intérêt région la ñuy défendre xam nañ ne ñii seen jéego bu njëkk mooy intérêt Sénégal te même bu ñu doon juum ci intérêt Sénégal la ñuy juumee mais nit dina juum sax mais na juum ci lim intérêt Sénégal quoi loolu daal man loolu la loolu laa gis ko te xam naa ne loolu la peuple Sénégal yëpp gis voilà. mais ci déplacement bi ñu bëri ñu ngi mer naan ñaa xarañ yoo waru foon nekk ak yooyu loolu noo gisee. waa non ñaa day def affaire am loolu amul problème. ñaa bu daggalee boppam bee wala mu fekk ko France président Sénégal président am la su demee taxaw mu romb ko a ah, da koy nuyu man de bu ko nuyuwul woon ma mere ko parce que ñaa nag du doomu Sénégal la quoi. boo xam ne yaa ngi nii xam nga ko man xam naa ko ñëpp xam nañ ko te dafa nekk ci ci côtéem quoi xeex ba toll fi mu toll ci ci liggéeyam man ñaa xaw ma ko mais xam naa ñaa koo wax ñaa xam na ko dafa xeex ba am fu mu toll ci liggéeyam nañ ko nangul loolu quoi te bu fekkee moom si na président jaral na ko mu dagg béyee dem ba France xam ban heure la président ñëw mu taxaw fa su ñëwee na vraiment loolu effort boppam la quoi jomaay deful effort pour ñaa sinap ko mais war a jàng